ànd taxaw ma jigéen dooleel Serigne bou fi ci biir Coof ak Bambara di nuyu la jeunesse. waaw ñëw bi ma ñëw ci euh, Coof ak Bambara dañ fi ñëw dans le cadre des réunions décentralisées parce que mouvement bi biñ ko taxawalé 31 décembre lañ ko préparé euh, lañ ko présenté monsieur le maire Serigne bou mu rafetlu ko accueillir ko ci lolu nak vraiment ñu commencé les sorties sorties moy les réunions décentralisées tay lolu mo ñu indi fi ci kër présidente. Euh, Salimata Jara ñuy wax ni ci li ñu nekk nii yàgg nañ cee nekk monsieur le maire Serigne Mboup yàlla dafa def ñu bëgg ko te boole ñu koog dara xajalanteew ñu koog dara suñu biir xol loolu moo waral guddi ba bëccëg suba ak ngoon mën nañ ni ñun bi ñu gañee élection locale ba léegi noppaliku wuñu parce que lii lañ doon préparé muy élection présidentielle may wax ni nag tey ku nekk dégg na li xew Sénégal ñun nag lim ñu sant mooy ak lu munti am continuer leen ngeen nekk ci waar bi vous n'avez pas droit au recul vous n'avez pas droit à la casse vous n'avez pas droit à la dispute donc continuez ngeen liggéey kooku mooy monsieur le maire Serigne lance le futur président de la République di wax ne tey su ko neexoon mu oñu dans la violence mais en tant que vraiment africain en tant que pur sénégalais en tant que euh, patriote yaakaar naa ni santuñu loolu ndax li may wax ku nekk gis na double nationalité yi nekk ci dëkk bi fait partie des gens yi nga xam ni tey ñoom ñu ngi am seen nationalité sénégalaise ba tey yàlla def na amuñ benn problème ci lii nga xam ne ñu ngi ciy dëgmal donc di ñaan renfort autour de ce mouvement ndax mouvement bi muy guddi bëccëg parewul benn yoon pour arrêter li muy liggéey lépp loo xam ne mi ngi koy def dina ko continuer di ko def di accentuer vraiment di dajale mbooloo mi ñuy wax ni nag c'est un mouvement bi nga xam ni département bi am nañ fa ay représentants au niveau national am nañ fa ay représentants ñu xam ne rek ak lu munti am liggéey bi ñun arrêté wuñu ko benn yoon nous allons continuer à travailler dans la discrétion pour que heure bu président Macky Sall ne dattel ce soir là incha allah on entendra on entendra la vive le président Serigne 5 cinquième président de la République bon en fait euh, je pense que génn bi est en tant que directeur de campagne dama yaakaar da nga agir en termes de parce que si tu es tu n'as pas besoin de demander de l'argent ou d'être payé pour Il y a une mission la fa doon parce que amna li nga xam waxon waxoon ak Michel le maire Michel le maire honoré na lolu bima honoré loolu vraiment ku ñew di say service boo paree merci rek lañ la mën a wax mais sëriñ boobu képp koo xam ne yaa ngi ànd ak moom te fidèle ci moom te ànd ak moom en terme de ànd nawle du pare war la du pare am yenn décision yoo xam ne da koy jël te doo ko yëg parce que man mii rek doy naa ci seede vraiment